Sunugal 24 point net l'information waaw tey dañ dajale woon commission bi nga xam ne moom la ñuy wax commission 100 000 logements commission 100 nag boo koy dégg mooy euh, li nga xam ne dañ ko tegoon ngir mën a waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu logement ñi nga xam ne ñooy tabax ñi nga xam ne ñooy financé ñooy joxe xaalis bi ñi nga xam ne ñooy jënd ñi nga xam ne ñooy coopérative yi ndaxte kat président dafa am yéene bu mag ci Sénégal fexe ba réew mi nga xamante ne ñun ñeenti junniy kër duñ ko defar par ñu fexe ci juróomi at yii di ñëw at mu jot ñu ciy defar euh, ñaar fukki junni kër loolu nag buñ ko bëggee aw ñu déggoo yenn saa yi ñu ne mbir mi yéex na waaye déet il faut ñu déggoo xam suuf si fan lañ koy amee bu ñu xamee suuf si fan lañ koy amee ñu xam ci ban njëg la ñuy tabaxee ñu xam impôt bi fu muy toll xam banques yi naka la ñuy joxee xaalis bi ñuy jënd ba nga xam ne dinañ ko mën a fay ci diir bu yaatu ndaxte li nga xam ne moo am ci suñu réew mooy képp ku bëgg kër da ngay euh, am di fayeeku weer bu dee di fay luyaas fi nga dëkk waaye tamit di dajale weer bu ne as tuut ngir mën a mën a jënd kër ci diiru ngir mën a jënd suuf ci diiru juróomi at wala fukki at te loolu du li gën boo noppee nga dajalewaat tuuti leb banque mu lebal la nga tabax li ñuy wax gros œuvre boo noppee utiwaat loo loo karalee loo peinture ak yu demee noonu loolu nag lañ ne dañu ko bëgg a yombalal sénégalais yi ku ci ne luyaas bi ngay fay ñu boole laak promoteur ci dëkk boo xam ne boo fa demee rek di nga mën a fay benn yoon sa luyaas luyaas boobu boo ko dajalee jox ko banque mu fayal la benn yoon yow nga fay ci fukki at ak juróom wala ñaar fukki loolu nag mooy politique logement bi nga xamante ne moom lañ jàmbale waa éligibilité bi moom loi daf ko njëkk wax parce que dafa am euh, dafa am euh, texte boo xam ne day wax ne politique logement social ñi nga xam ne ñoo ci éligible mooy famille yi nga xamante ne maanaam li ñu wax ménage kër gi boo dajalee li ñu am yëpp weesuwul 450 000 450 000 mooy téeméeri junni bu manqué fukk du dëgg loolu nag boo ko defee da xam tamit ne ay sénégalais lañ ko war a defal parce que ci seen réew lañ ne ñaareel ba mooy. Euh, ñoo ñooñu waruñoo mës a am kër feneen ndaxte ñi nga xamante ne mënuñoo am kër ñu tax a jóg du ñi nga xam ne dañoo am kër di utiwaat beneen wala ñi nga xamante ne dañoo am kër di wut lu ñu luwe dañoo bëgg rek sénégalais yi nga xamante ne mënuñoo am kër wala am nañ lu doy waaye banque yi nanguwul leen lebal bu ñuy fay kër gi dañ koy def ci fukki at ñaar fukki at ñu mën a fexe ba ñoom ci benn saa rek lu yaas bi ñuy fay banque lebal leen loo xamante ne mën nañ koy fay weer bu dee ba fukki at juróom ñaar fukki at ñu moom seen kër waaw architecte yi moom ñun constat bi ñu def rek lañ def ñëpp li tax président Macky Sall woote ne nañ defar cent mille logements accessibles et décents loolu mooy euh, njëg yi dafa cher président ne naka la ñu war a fexe ba kër yi yomb kër yi nii ñuy fexe ba mu yomb mooy fexe ba ut gox ak goxaan yi nga xam ne seen suuf dinañ ko jox population yi te duñu fay dinañ ko jox promoteur déggoog moom tënk njëg bi ba nga xamante ne njëg bi du nekk rek. Euh, njëg bi dafa yéeg ma yéegal njëg bi dafa wàcc ma wàcce donc loolu mooy li nga xam ne moom lañ def tey ndaxte bu ñu dégluwantee ku nekk waxtaan dégg ngeen architecte yooyu ngay wax ñoo fi nekkoon tey wax nañ yan tibu kër lañ war a tabax bu ko defee njëg yi yomb fan lañ war a mën a amee suuf ak banques yi ban xeetu financement la ñu mën a jox ba kër yi mën a jàppandi waaw kër yi ku ci ne am nga sa bëgg-bëgg waaye ñun dañuy fexe ba nga xamante ne Euh, dañuy standardiser démarche bi standardiser mooy lan mooy fexe ba euh, bu ñu amee benn type kër maanaam bi nga xam ne moom lañ gën a laaj muy ñaari néeg saal nga xam ne boo ko jëlee ci terrain wu 150 mètres carrés maanaam euh, téeméer ak juróom fukk mètres nga mën ci tabax lu toll diggante 60 ak 70 mètres kër gi nag mën a jar loo xamante ne diggante 10 ak 12 millions loolu xamante ne moom la ñuy liggéey waaye loolu yëpp mooy xalaat yi nga xam ne moo fi génn. te ñu war ko jébbal président de la république ci conseil présidentiel bu ko defee ñu jël décision yi ci war nag bu ko defee ñu avancé déjà am na ñetti programme yoo xam ne tàmbali na benn bi cité Diobass la ci Notto Diobass booy génn ci autoroute à péage bi beneen bi ci Morolan la beneen bi ci Ronk la mooy dans le nord Ronk ku ko xam-xam ne mooy dëkk bi nga xam ne ci waalo la ne ñu fay def ñu fay bay ceeb te 20 pour cent wu production wu ceebu Sénégal di fa jóge waaw dinañ lancer tamit campagne de inscription nga xam ne képp koo xam ne rek jàpp nga ne yeyoo nga këru euh, logement social dina am fiche bu ñu defar boo xamante ne nit ñi dinañ dem remplir ko moo xam dëkk bi ñu ko bëgg remplir ko joxe ko bu ko defee ñun ñu am information ci demandeur yi ndaxte am nañu ay études waaye dañu bëgg mu gëm leer ñu xam nit ñi fan lañ féete ak fan lañ bëgg kër yi bu ko defee ñu mën a Euh, lancé campagne boobu xam kan ak kana yi bëgg soxla ci kër yi. seen politique bu désencombrement est-ce que nekkul lu am ay jafe-jafe jamono ji ndax zone kenn daf demee fu mel ni ancienne piste peut-être am na ñu dellu si waaye dafa am ay programme d'aménagement te programme d'aménagement bi dafay jël tuuti temps ndax waxoon nañ leen ko ne leen programme bi ñeenti temps la bu njëkk bi mooy désencombrer nettoyer. aménagé ba pare nga def suivi bi boo seetloo stade Iba Mar Diop kenn ñëwu fa stade de l'amitié kenn dellu suuf fa ancienne piste nag am na ñu dellu si mais dafa am ay temps pour aménager loolu nag dafa laaj yenn saa ay procédure de passation de marché am yoo xamante ne ay procédure de partenariat ndaxte am na ay entreprise privée yoo xam ne ñoom bëgg nañ jàppale état du Sénégal ci politique de désencombrement bi dañ bëgg ñëw aménager ay espace public tamit am na loo xam ne bëgg nañ ko defal suñu bopp mais dafa laaj ay procédure de passation des marchés donc bëgguñu di def lu baax ba pare di jalgati tamit li nga xam ne moom la yoon wax faaw ñu respecté procédure yooyu. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur, c'est ici même Sunugal point net.